man gëmuma dara ci lu Alioune Tine di def parce que gëmuma ko xam naa ko bu baax gëmoo ko non parce que dama ko xam dama ko xam c'est pas le parce que du politicien la li muy mbubboo société civile mbubboo du moom xam nga non Alioune Tine politicien la non politicien rien ne l'empêche bu bëggee def politique mu créer parti ak jafe xam nga nag kaay ma wax la nag am na ñu nga xam ne ay politiciens lañu mais xam nañ ne nguur carte moo koy joxe du xam-xam nguur carte moo la koy jox nga jiite ko nag nga yore ko nag xam-xam moo la koy jox. Alioune seen Blanche Plomb euh, qui euh, prêche la paix. ba muy nekk sec ba muy nekk secrétaire général rado ba muy diriger RADDHO RADDHO xam nga la woon dafa amul limitation à moo doon jiit. kooku jeexal deux mandats mu taxaw ne kooku dootul nekk candidat mu nekk candidat ñooñu jàppale ko mu nekk candidat. def na fa ñaar fukki at alors que ñeenti at moo doon limitation bi. rado lu mu doon tey. non déglu rek déglu rek non man damaa fekke de. waaw mais mais rado éclosion am. waaw rayonnement posture ak position am dans le jeu politique. waaw c'est sous le magistère de Alioune Tine c'est sous le non il il a il a. la responsabilité morale. waaw mais déclin tamit mais déclin tamit déclin tamit. 2012 Alioune Tine seen xarit. non non déglu rek non nekkatul Waradu. waaw de de déclin Waradu tamit. non 2012 da ma ne déclin déclin Radu xam nga boo nekk ah. éclosion am non Radu ak bëri woon ay universitaire ak bëri woon ay nit de la société civile ak bëri woon ay grand ñu nga xam ne dañ doon jàpp bëgguñu feeñ bu fekkoon ne carrière la ak affaire boobu non. 2012 vous avez loué la posture de Alioune Tine. ci lan. 2012. loué ci lan dans le cadre du M23 pour faire tomber le régime de Wade. non Alioune Tine mu ngi woon ci biir. non déglu ma a porté les la cause de la société civile non c'était pas le patron non xam nga xeex bi euh, kii. 2012 2012 M23 xam nga fan la. c'est les politiciens. et la société civile non non déglu rek c'est les politiciens qui ont mené le combat. avec la société civile rek déglul rek ma wax la qui ont la le combat et comme dañ doon politique ñu xam ne la y avait un y avait une bataille parce que y avait une bataille ñu ne na ñoom duñ ko jiite ku ci nekk na jiite parfait ça c'est des consensus républicains sauf que il a il a non attends non vous avez loué on n'a pas non il de l'action des politiciens xam nga affaire boobu il a profité de l'action des politiciens et après lui il a une position politicienne il est allé au pouvoir avec nous. Euh, il n'a pas demandé yéen a ko nommé comité sénégalais des droits de l'homme non mu bañ. ah lu tax non parce que xam nga quand tu es dans. la ah. société civile. <laughs> Eh, boo xasee ba génn mënoo ñëw ne damay nekk société civile bu ñu ma joxee ma dem pouvoir euh, damay dem pouvoir suspendre après bu ma paree dellusi. tu n'es pas obligé d'être un homme politique non je reviens sur le débat de de que je voulais poser à ce niveau-là j'ai dit je dis il a di aujourd'hui il faut que les gens se parlent si je sais que ne il le dit à chaque fois que Sonko est en mauvaise posture parce que foofu la bokk. ah bon la bokk. à chaque fois non non xam nga bu fekkoon ne dafa dëgër ci moom. il a appelé ici à des marches à n'en plus finir à des manifestations dem na fi Gambie dem na fi fu nekk di wax des marches dem na fi même yeneen kii di demande di demande pourquoi il demande pas une marche pour le dialogue que les gens marchent pour le dialogue y wàcc pour le dialogue c'est tous les je le mets en défi bu fekkee li muy wax gëm na ko pour le dialogue na demander une marche pour que les gens se mettent autour d'une table et dialoguent sincèrement pour le pays non c'est des combines et ça ce sont ces combines là moi je le dis hein, je le défie bu fekkee il croit au dialogue il n'a qu'à à ce que tout le monde que les gens descendent dans la rue de façon civile même bu dee ñun politiciens lañ dañuy suñu suñu mobile politicien teg fële ne Sénégal rek moo ñu ñor ñu def marche pour que Sénégal ñu dem vers le dialogue il le fera jamais il anime la galerie dafa am fu mu pourtant on a pensé que Alioune était du côté de l'opposition non pas ñoom euh, Wade il il ne voulait pas le voir. il était aux assises nationales. Ah. àndul ak Macky Sall. mais les gens du pouvoir ne voulaient pas le voir le m on l'a agressé lors des événements du 23 juin Alioune Tine. oui oh. on l'a on l'a le régime de Wade aussi l'a beaucoup sauvé sur beaucoup de questions. sauver sur quoi sur de questions. mais sur quoi. non on en parlera. non mais sur quoi. sur ces sur ces. sur quoi. sur ces comportement ces comportements ici à l'international non déglul rek déglul rek dangaa laaj déglul ne fais pas ne tu veux me à parler ne fais pas ne semble pas faire être, ah si je suis ah, man léegi moi je l'ai connu man tasante naa moom ci à l'étranger témoin là. mu am comportement yoo nga xam ne bokk naa ci ñu ko sauvé donc boobu comme bokk naa ci du ma ci wax mais moom xam na jëli na. Ah non déglu rek li ma la wax. non non déglu max la xam nga fii xam nga rajo yow rajo li ngay wax fii man bokk bureau national SAES e on a sauvé la rajo fii temps wu Diouf la on a sauvé la rajo moom xam na ci li mu nekkoon. jàpp nañu moom siège rajo bi jàpp nañ fa ay armes non il faut que les gens là ñu jàpp nañ fa ay armes fii point fii point E. arme pourquoi faire non déglu l'avait accusé à son temps qu'il faisait du qu'il faisait du trafic d'armes mm. on s'est mobilisé non on dit on s'est mobilisé nous au SAES on a fait rideau on a négocié pour qu'on le lâche il avait fui le pays non xam nga l'histoire là nous on connaît les gens j'ai dit ñun dañoo yàgg fekkee on est là depuis les années 70 sur le terrain politique dans l'opposition non ce gars-là ne peut pas parler avec nous du Sénégal de l'avenir du Sénégal c'est le cadet de ses soucis li may wax à peu près non on fait pas son procès je lui demande tout simplement su fekkee ne li muy wax gëm na à chaque fois bu bëggee day woote manifestation laa na woote sénégalais yi nañu marche. mu dem seeti xalif généraux président à plusieurs reprises waaw même ci dialogue daaw jéeg bi waaw même ci Covid bi il a sollicité les Alioune Tine et la société civile. non il a il a pour que mais ci la société civile Maïmouna Maïmouna le président dans ses ah. actions quand il y a une position nationale une position de crise il a appelé tout le monde tout le monde est venu aujourd'hui aussi on est dans une situation maitriser où les Sénégalais va mais li ñuy gis ci kanam ak yenn adversaires yi nga xam ne dañoo taxaw kët ne jonn on résiste on tient et on dit on dirige même les les, les choses. no déglu rek xam nga lu na nag danga may bàyyi nag. non bu ma bu ma jëlee Ela rek nga ne danga may dagg. non non dagguma la tactique boobu baaxul. tactique boobu baaxul. non dagguma la xam nga lu ma jaaxal ci yéen. Eh, ak ak ngaa war a mën a jàng ci li may wax nag may mën a bàyyi moom wax la parce que damaa yàgg fekkee man. damaa yàgg fekkee. vas gis nga réew mi fi ñu dafa am politique fii ñuy def politique heure bi ñuy def politique boo bay élève la ñu gis nga fii ñu fi waaye société civile ñoom ñëpp ñu ne ñoom ñoo bokkoon parti politique yi moom LD la bokkoon est-ce que xam nga loolu Alioune Tine waaye LD la bokkoon terrain politique bi ba nga xamee ne dafa am njëg am na parti politique yu bëri dañoo décidé ne nañu dem occuper société civile bi balaa ñeneen jël amoon na société civile yu bokkoon fii PS am na yu bokkoon PDS am yu bokkoon And Jëf am na yu bokkoon LD radicalisation de la gauche sénégalaise et And Jëf joué na bu important tactique bi foofu la pour ñu am une société civile bu nga xam ne ci xeex bi ñuy xeex pour Sénégal émancipé wu société civile dafa war a am moom ñi mu bokkaloon mu ñi mu àndaloon ci moom Dieudonné benn ko li Faye ñu bëri ay ànd jëf lañu ñu woon mbaa ay sympathisant wu après euh, ànd jëf ñun ñoom Emmanuel Tine ak ñeneen assemblée général constitutive bi je me rappelle bien de ça c'était pour créer les conditions que Sénégal force yëpp nekk fi pour taxawal Sénégal parce que à cette période la gauche commençait à sortir de ces démarches insurrectionnelles et révolutionnaires en conseil xam nañ ni ñoom ñëpp commencé nañu bokk élection andi jëf LD PIT gauche bi yëpp commencé woon nañ daal bokk élection gis nañ ne la voie bi yor c'est pas voie ou révolution alors que pourtant ñoom ñëpp ay révolutionnaire la ñu woon ñoom ñuy jóge ci PAI ak ñuy jógewul ci PAI ñu taxaw ñu il faut qu'on crée les conditions pour aller vers un système démocratique le pays n'était pas démocratique on s'est battu on a on est arrivé à un consensus démocratique en 2002 autour après la en réforme 92 en 2000 en 2000 le non ça a, le, procès ça a commencé non je n'ai euh, avec dit, le code consensuel de 92 non ça a commencé bien avant ça cette bataille là si tu veux revoir parler parler de ça euh, c'est euh, la démocratie totale avec euh, la liberté de créer des partis de 1900 euh, le multipartisme total intégral tu peux parler de ça mais tu peux parler aussi de 1975 ou quand Senghor a euh, euh, 74. 74 il a autorisé le multipartisme non c'est tout un processus j'ai dit qu'on a abouti à une victoire de la démocratie en 2000 en 2000 1999 2000 après on a créé des fronts pour des élections transparentes pour la liberté des syndicats autonomes se sont créés tout un pro un processus démocratique s'est créé et le Sénégal était devenu un pays démocratique. Et on disait que le Sénégal était un pays démocratique sans alternance. On s'est battu pour aller vers une alternance. En disant que pour le faire, il faut, une, il faut, il faut un code consensuel, mais il faut une refonte. Dire que le fichier, c'était un fichier qui appartenait au PS. Et que quelqu'un, tant que le PS organisait des élections avec ce fichier, il gagnait les élections. On Euh, ce que l'ancêtre euh, euh, l'ancêtre de la de la Sénat le. la Sénat la Sénat on a mis général qui a publié qui a sorti les qui a publié dans le net au départ tout le fichier électoral les partis des coalitions se sont faites la gauche est allée soutenir Wade en disant que les conditions euh, les conditions euh, les conditions les conditions pour une alternance étaient réunies. sur la base d'une analyse où on constaté que depuis 1983 à chaque élection le PS perdait 10, perdait 10 points en 98 il y a la sortie de Djibo et de Niass Niass c'est beaucoup plus tard 99 oui c'est beaucoup de façon unanime en disant qu'il fallait soutenir Wade parce que il représentait c'est lui qui représentait l'opposition et c'est lui qui allait permettre de créer les consensus euh, euh, euh les conditions d'une alternance et c'était une bataille nationale qu'on a réunie et ces stratégies politiques qui se faisaient et Wade disait que des en 1983 en 1988 en 1993 en 1993 oui il pouvait aller au pouvoir mais il ne veut pas aller au pouvoir en marchant sur des cadavres. et tout ça pour dire quoi. Cheikh non pour dire que le pays là on a des dañoo am ay bànqaas. waaw ah. dafa am. ba bànqaas yooyu moo leen indi ci. nguur non non non moo tax moo tax bànqaas yooyu dañ koy protéger. ba xaaral xam nga fi ñu toll nii ñun ragaluñu dans des conditions normales démocratiques. d'aller aux élections suñu perte ñu dem opposition